alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulina al amin muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk auditeurs yi ñuy déglu fu ngeen man di nekk ci kaw suuf ñu ñëwaat ak yéen seen émission al fatawa di ci ànd ak docteur Mouhammad Ahmad Lo xafidahullahu wa raa ñu leen di ziyaar yéen ñëpp di ñaan yàlla subhaanahu wa taala ci weeru tedd wi ñu nekk yàlla defal ñu ci taw tawfiq ak taysiir tabaski bii ñu jëm tamit yàlla subhaanahu wa taala àggale ko ak jàmm ak salaam rawatina encore dimanche bi nga xam ni mooy bisu arafa xëy na ñëpp xam na ni incha allah rabbi war nañ cee woor ndax njariñ li ci nekk ci koor dun guddal dañuy jox cheikh bi mu ibbi su bee pare ñu doogay ñëw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 sallallahu wa sallam alayhi wa ala alihi wa ashaabihi ajmain amma baadu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ñoo ngi nuyu mboolem mbokk yi ñuy déglu ak fu ñu mën di nekk ñu dellusiwaat ci sunu jataay bii nu bokk muy jataayu al fatawa di ko jaarale fii ci leeral fm kon tey sunu jataayu tey mooy àllarba jii nu nekk di juróom-ñaari fan ci weeru septembre nu fas yéene eh, daje itam nag ak juróomi fan ci weer wi nga xam ne mooy weeru dul xijja ñu fas yéene kon eh, yeesalaat sunu jataay di ñaan sunu borom tabaraka wa mu boole ñu tawfiq fas ci yéene ànd ak Abdoulahi Baba Dieng ak ay technicien fas yéene kon Cheikh Abdallah li nga xam ne moo fi jot ci ay laaj ñu déglu ko kon lépp lu ñu ci sunu borom tabaraka wa taala ñu baaxee ko suñ mbokk yi jullit yi ñuy déglu ak fuñ mën di nekk bismillah jazakumullahu xayran cheikhana kii dafay wax ni xale bu góor boo xam ni moom dafay daal respecté kenn ci waajuram yi bàyyi ki ci des am papaam la gën a toppatoo wala moom la faale mais yaayam respecté wu ko wala yaayam la toppatoo mais papaam respecté wu ko Euh, toppatoo wu ko daal mën na ko reseer mais mais na muy toppatoo yaayam toppatoo wu ko papaam te ñoom ñaar ñëpp di dund mu ni loolu lu ci àtte lislaam alhamdulilah euh, kii toppatoo kenn ci ñaari waajuram ba noppi sàggane ka ca des day kooko mi ngi ci pertaange maanaam mi ngi perte te yëgu ko ndaxte dafa am ñaari occasion yu ko jàppandi benn bu ci nekk mu mën cee jariñu lu bokk ak la mu doon jariñu ci ba ca des mu ñëw jël leen li bàyyi la ca des su ko defee kooku lor la koy jural mi ngi mel ne rek koo xam ne dafa am ay dàll mu mën a sol dàllam yi di dox ci naaj wi mu ñëw sol wenn dàll jaar ca naaj wa di dox benn tànk bi di lakk ci naaj wi bi ci des di dox ca kër ga wala bi ci des di dox di jariñu ci dàll wi su ko defee su boobaa ma ngay jariñu fële waaye ma ngay loru fële itam nag ndax sàggane kim sàggane kenn ci waajur yi kooku bàkkaar la koy jural bàkkaar boobu yi bu ko tuubul ba dajeeg boroomam musiba mën na ko caa dal kon na jéem a tuub te ànd ak xel wëlbati ku xam ne birrul waalidayni loolu lañ jàngale wa wassa wa wassayna al insaana bi waalidayhi loolu la borom bi tabaraka wa taala wax nee na nit ki dañ koo dénk ñaari juróom kon warta topp kenn ki maanaam warta rafetal jëme ci kenn ci bàyyi keneen ki ci des birrul waalidayni mooy rafetal jëme ci ñaari waajur borom bi tabaraka wa taala bu fekkee ni dafay dénkaane dénkaane mu ne dénk naa nit ñaari waajuram kon nit ki ne jëfe dénkaaneel boromam mooy rafetal jëme ci ñaari waajuram te bañ a rafetal jëme ci kenn ki di ñaawal di jëme ci ka ca des ndaxte kon euh, lam doon def ci lu rafet te jëme ko ci kii lële da koy suul muy ñaawal ga muy ñaawal di jëme ci kële yàlla na ko borom bi tabaraka wa taala gindi mu jëm ci nag gën a topp ñaari waa gën a jëm ci ñaari waajuram comme ni nga xam ne noonu la ko lislaam bëggee wallahu alam jazakumullahu xayran naa ci tontu yu leer yi kii dafay wax jigéen ñi ni ñuy nuyoo sukk bi ñuy sukk noonu mu ndax loolu day nekk aada joo xam ni sharia dàqu ko wala lu ciy gisinu sharia noonu ñuy sëggee wala noonu ñuy sukkee noonu alhamdulilah sharia aada bu mën a doon bala mu ko nangu wala ma di ko dàq dañ koy firi ba mu xam aada ji ñi ko aada woo luñ ci jublu loolu yi ñu tudde sukk ñi koy def suñu laajoon luñ ci jublu dañuy xam ne respecté nit ki ak fonk ko mooy tax ñi koy def waaye du caagi ni jaamu ko moo tax wala su jootal ko wala lu mel noonu la ko tax a jóg kon mooy wàllu respect ki nga xam ne daa doon gone ba noppi di nuyu mag te du ko def nuyu boroomi baayam te du ko def boo laajoon mag ñi ab àtteem dañuy wax ne kii de gone gu réew la gone gu yaruwut la des koo yarut kon su ko defee lu mel noonu aada ju mel noonu dañuy sharia day jàpp ne aada ju rafet la joo xam ne ju wàññiwul dara la su fekkee ne jigéen ji da koy defal baayam wala mu defal ko koo xam ne moroomu baayam la wala mu defal ko koo xam ne jëkkëram la wala magam wala ñoo xam ne daal kilifa la ci moom su boobaa loola dara nekku ci su ko naree defal nag koo xam ne ab jàmbur la na ànd na ku wattandiku ndaxte saa bu ñu ragalee ne fitna mën na caa juddoo rek su boobaa duutu dagan même nag mi nga xam ne moroomum baayam la sax su fekkee ne ndaw si ragal ne xeeti sukk yooyu ak lu ko nuru am na ju mën a jur su boobaa duutu jaadu mu di ko ko defal fi nga xam ne daal fitna ja dàqoo na fa daal te respect rek moom lañu fay séentu waaye di su ko séentu leneen su booba foofa la borom xam-xam yi dëppoo ci ne lu mel noona aada ji mel noona kenn du ko tere waaye saa boo xam ne nag aada ji ña ngay ragal ne fitna nag mën na caa juddoo wala yeneen yoo xam ne yu ca la nag su boobaa boobu bunt moom charia daf koy daal di fermé daf koy daal di tëj ñu daal di wax ne loola daganul Cheikh Abdallah jazakumullahu xayran feexe naa ci tont yi nee na dafay ñëw di julli si julli ñeenti rakk tisbaar wala takusaan wala gee ñu rawee ko ñetti ràkk mu fekkee imaam benn ràkk su jullee moom benn ràkk boobu ba mu sëlmal naka lay fayee yeneen ñetti ràkk yi alhamdulilah ki jikk fekk imaam di julli mu dugg ànd ak moom julli benn ràkka jóg war mottali yeneen ñaari ràkka wala mu war a mottali yeneen ñetti ràkka na jàpp rekk ne ràkka boobu yi mu fekkee moom mooy ràkkaam bu jëkk bu mu konteel imaam ma ko jiitu ay rakkaam waaye na konteel boppam moom mii ñëw ay rakkaam ñaata rakkaa nga jullee kon yow mii nga xam ne dangaa fekk si imaam mu ne benn rakkaa mu ne ko kon loolu mooy sa rakkaa bu jëkk boo jógee yaa ngi jëm ca sa ñaareelu rakkaa xoolal boo nekkee sa ñaareelu rakkaa loo daan def rek nga def loola ñaareelu rakkaa moom faatiha ak saar rek la si mën a jàng soo jàngee faatiha ak saar boobu ba noppi ginnaaw ñaareelu rakkaa la boo su jootee sa ñaari su joot faaw nga toog nag taaya su ko defee boo noppee jóg ñaari rakkaa yi la dese nga jullee ko na ko waroon a julli su fekkoon ne yow dong yaay julli kon loolu moom day daal di leer nañ ñi moo xam julli timis la nag moo xam julli gee la wala day julli takkusaan wala mu julli tisbaar gum ci mën a doon daal jàppal ne ginnaaw dangaa fekk ci imaam yow Euh, ànd nga ak moom benn rakka sëlmal na jàppal ne rakka bi nga ànd ak moom mooy sa rakkaa bu jëkk su ko defee nga li la ca des na nga daan lee su fekkee da ngay julli yow moo tax sax boroom xam-xam yi faral di caxaate ci wàllu fiq dañuy wax ne kañ la nit ki di julli julli goo xam ne ñetti rakka lay doon mu taaye ci ñetti taaya loolu mooy su fekkoon ne julli timis la mu dikk fekki rakka bu jëkk bi fekkee rakka bu mujj bi nga xam ne mooy rakkaab imaam bu mujj te nekk rakkaam bu njëkk moom faaw imaam ji day taaya da koy conditionné moom it mu taaya ànd ak moom bu imaam sëlmade mu jóg dem ci ñaareelu rakkaam bu noppee day taaya ndax ñaareelu rakkaa timis ku ca nekk dangay ngay taaya su noppee jëm ci ñetteelu rakkaam su noppee moom itam day taaya door a sëlmal su ko defee ñetti rakkaa la julli rakkaa bu ci nekk taaya na ca benn taaya loolu euh, mooy leeral bunt boobu wallahu taala alam laajte aay bi yàlla wax ci alxuraan mu ni nekk na fii kitaabi maknuun laa yamassuhu illa almutahharuun mu ni kitaab maknuun luñ ci jublu laa yamassuhu illa almutahharuun encore mutahharuun boobu ñan lañ ci jublu alhamdulilah danañ faral di wax ne jataayu fatawa bokkul ak jataayu firi alquranul karim ba tax na yooyu duñ ci faral di sori lool waaye ginnaaw kàddu yu gàtt la rek wàññiwul dara ñu wax ko kitaabul maknuun liñ ci jublu mooy al lawxul mahfuuz lawxul mahfuuz borom bi tabaraka wa taala moo ko def muy kaggu goo xam ne alquranul karim léppam foofa la nekkoon après nag muy wàcc ndànk-ndànk di wàcc ndànk-ndànk bu mat sëkk kon moo tax alquran wax ne ci lawxul maxfuus boobu ci la nekkoon mooy kitaabul maknuun laa yamassuhu illa al mooy téere boobu yi nga xam ne moo nekk al maknuun muy al lawxul maxfuus ci boppam lenn du ko jege di ko laal lu dul loo xam ne lu laab la kon foofa malaayika yi rek ñoo fa nekk te ñuy laab lañ ñoo koy jege su jógee foofa ca anbiyaa ya mu yonente ya ca la jëm kon lawxul maxfuus moom sobe du ko jege lu setut du ko jege lu laabul biir ak bitti du ko jege moo tax mu ne laa yamassuhu illa almutaharoon ah, laa yamassuhu illa almutaharoon as-San'aani mi ngi wax ci téere bi ñuy wax subul salaam mu ne boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne li ñu jublu ci loola mooy allawhul mahfuuz laa mu ne dëppoo nañ ci ne damir jooj yi moom dafay dellu ci lawhul mahfuuz wallahu taala alam allahu xayran cheikhana kii dafay laaj mu ni soxna soo xam ne njëkk muy joteeg boroom këram ci kaw lal tas am na wala njëkk muy dajeeg boroom këram ci kaw lal boroom këram faatu na mu ni ndax kooku dina tënji wala déet ak ndax dina am ci miraas mi wala déet alhamdulilah Cheikh Abdallah ñaari masala yooyu ñu boole mooy ki nga xam ne boroom këram dañoo fas sëy bi ba noppi mu génn àdduna te fekk booleeguñ leen ci wàllu sëy ak ki nga xam ne dañoo takk sëy bi ba noppi mu fase jabar ji te fekk leen ci wàllu sëy bu dee dañuy xool wàllu idda gi wala ñuy xool wàllu miraas bi wàllu miraas bi moom ginnaaw ak buuma nga ko ko wax ne buumug sharia la kooku moom miraas daf fay am li gën a dëgër mooy dañuy doon waaye nag su fekkee ne ci wàllu idda la ki nga xam ne dañ koo fase te fekk li ñu tudde du xool amagut maanaam kenn jébbalagu ko kooka moom idda waru fa ndax day dëppoog li sunu borom tabaraka wa taala di wax ne yaa ayuha alladina amanu ida nakaxtumu almuminaati summa tallaqtumuhunna min qabli an tamassuuhunna famaa lakum alayhinna min iddatin tactadduunaha yéen ñi nga xam ne eh, yéen a gëm yàlla su fekkee ne dangeen a takk soxna ba noppi fase ko te fekk àndagu leen ñooña day benn idda waru leen bu fekkee ne nag ci wàllu miraas ci wàllu faatu la kooku moom téeñ ji war na ko ndax téeñ ji googu duñ fàtte ne ak jaamu yàlla la goo xam ne borom bi tabaraka wa taala moo ko yan kooka nga xam ne saa bu faatu lay jëkkër rek da ko war a def ñeenti weer ak fukki fan waaye idda moom dafa doon loo xam ne sababam mooy ndaw si dañoo bëgg mu iddawu ci kër gi ndax yeneeni sabab yoo xam ne moo tax waaye ginnaaw nag ak ànd amagu fa ak jote amagu fa su ko fasee moom su boobaa idda waru ca eh, buum nga day daal di dagg su fekkee ne nag eh, ku faatu la kooko moom tenj gi daf koy war kon daal donn gi moom ñoom ñëppay donn waaye bu dee ci idda ji nag ki ñu fase moom idda waru ko waaye ki nga xam ne jëkkëram dafa faatu kooku tenj war na ko wallahu taala alam jazakumullahu xayran cheikhana kii dafa ni koo xam ne dafay julli wala boog mu toog di jàng alxuraanam mais ci biir julli bi day jàng xafs ba mu yàgg muy jàng warsh euh, loolu lu ci sharia wax alhamdulilah xafs ak warsh ak lu dul loolu ci mboolem riwaayaat yi ak qiraat yi lépp alxuraan la maanaam alxuraan mutawaatir la boo xam ne bu ci nit jàng bu mu doon def na lu baax waaye nag sàmmoonte ak jàngiin wi ngay jàng ci alxuraan bi dafa doon loo xam ne lu jaadu la xëy na day doon la gën a woyof su fekkoon ne dafa jël benn rakka jàng ca wenn jàngiin beneen rakka ba ca des jàng ca weneenu jàngiin loolu mooy gën a woyof ci kaw ci su kàbbaree di jàng daaneela bu dugg ci biir qiraa génn naa duggati ci beneen qiraa wala riwaaya génn dugg ci beneen riwaaya ma ne lu mel noonu loolu dafay jaxase loo xam ne lu organisé wu la lu tegu ci aw yoon la muy qiraat yi nga xam moom la ñuy jàng alquranul karim kon daal li gën ci moom mooy riwaaya bu mu xas jël ba di ko jàng mu continuer ci booba su fekkee ne muccatu te def lu mel noonu su ko defee ci rakka bi mu def ko ci bële waaye benn rakka ngay jàng daal dugg ci biir qiraa ak génnaat dugg ci beneen jaxase ko te fekk yaa ko tey daal loolu dafay jaxase jànginu alquran bi ci kaw ñi lay déglu moo xam ñu xam jàngin woowu la moo xam ñu ko jàng ñu ko xamut su ko defee bu boobaa loolu xilaaful awlaa lay doon maanaam lii nga def daal dañ lay wax ne gënut te jullit bi day tànn jamono yu nekk la gën ci ay jëfiinam ak ci ay waxiinam wallahu taala kii dafa ni dafa ñëw ju julli far am luñ ko ree woon léegi bi imam salmale moom muy mottali waaye nee na buy mottali ba nit ñi di génn day am ñuy jaar ci kanamam muy ndax loolu dafa dagan wala ñooñu am na lu leen sharia sant alhamdulilah ki imaam sëlmal muy jóg di mottali euh, moo ki ñëw di julli moom dong ñoo bokkub àtte ku ci nekk da war a góorgóorlu ba am li ñu tudde saatir saatir nag mooy loo xam ne da ngay julli ci kanamam maanaam day nekk ci sa kanam ngay julli mën naa doon ab miir mën naa doon benn kenu ci kenu jàkk yi mën naa doon sax ab saag boo xam ne danga ko teg ci sa kanam léeg-léeg nag ba ngay julli te doon maamoom fa nga nekkoon dafa soree ak foo xam ne manees na koo def kiiraay nga xam ne bu imaam sëlmalee eh, miir ba sori na la wala kenu la sori na la su boobaa seq ñaari jéego ba ñett ngir jege kenu loole wala miir ba du wàññi dara su fekkee nag daf laa sori ba jéggi dayoo nag ma ne sota julli nag di waaxu di dem mel ne koo xam ne ku nekkul ci biir julli la su boobaa la ngay mën daal mooy taxaw di julli su ko defee nag ginnaaw yaa nga taxaw di julli te amuloo lu lay yiir te fekk ngànt moo ko waral ndax mënoo waaxu di dem kon ki war a jaar ci sa kanam moom moo war a xool yonente bi sallallahu wa sallam nee na kenn ci yéen su xamoon li muy gàddu ci bàkkaar su jaaree ci kanam kuy julli jaral na ko sax mu taxaw ñeent fukk di ko xaar ci nettali xadis bi nee na damaa xamul ndax ñeen fukki fan la wax wala ñeen fukki weer wala ñeent fukki at ma ne waaye lu mu ca mën a doon rek lu diis la ndax toog di xaar ñeent fukki fan ngir kooka sëlmal wax dëgg yàlla loola lu yàgg yàgg la te loolu mooy la ci gën a suufee ci yiñ tudd ci xadis boobu kon loolu day wone ne yow mii nga xam ne yaa ngi romb nit ki muy julli te amul saatir te fekk li ko xañ saatir mooy dafa am ngànt ndax daa àndoon ak imaam mu sëlmal te munta wuti saatir te munta waaxu ba àgg ca biir béréb ba ndax sori na lool kon yow mi gis loolu yaa war a xaar ba mu sëlmal wala nga jaar ca gannaawam wala nga teggi jaari ca weneen yoon lu ko mooy mën nga faa gàddoo bàkkaar boo xam ne xamoo foo ko yennikoo ji te kuy ñëw ci jàkk wax dëgg yàlla wut si tuyaaba moo la indi woon waaye su fekkee da ngay ñëw di wut si tuyaaba nag mujj nga nar fa gàddaayoo gàddoo bakkaar boo xam ne jaroon na nga taxaw di xaar ñeent fukki fan wala ñeent fukki at kon loola lu mat a wattandiku la kon jàpp naa ne daal kenn ku ci ne am nga responsabilité mooy kii julli na góorgóorlu ma am sutura su koy yiir nga xam ne kenn du jaar digganteem ak loola ku bëgg jaar digganteem ak loola mu wan la ne day julli koo xam ne itam amuloo sutura soosee responsabilité ba day gën a tegu ci kaw ki nga xam ne moo war moo naroon a jaar ci sa kanam mu xam ne jaar jum nar a jaar ci sa kanam bakkaar bu rëy nga ca mu teggi jaari feneen wala mu xaar ba nga sëlmal mu door a jàll Cheikh Abdallah jazakumullahu xayran cheikhana kii ma nga ca Italie di woote nee na dafa am kum dajal foofu ab boroom xam-xam mu ni ko du dagan ngeen wut double nationalité te moom am na nationalité Sénégal am na nationalité Italie muy laaj loolu ndax euh, wax ju wér la wala déet daganul ci ab jullit muy am ñaari nationalité alhamdulilah nationalité aw këyit la woo xam ne moo lay jox àq yi nga mën a dëkk ci dëkk boobee na fa waa dëkk ba dëkkee mën a euh, jariñu ci seeni droit ak seeni devoir yi nga xam ne moo fa nekk maanaam la leen war war la la nga xam ne moom la ñuy jariñoo ci réew ma it nga mën caa jariñu loolu nag gisuma ci lislaam jii nu nekk loo xam ne luy tere ab jullit mu mën a tox ci kaw suuf si nga xam ne suufu si yàlla la dem fi beneen dërëb jël fa ay njëfandukaay yoo xam ne mën nañ koo yombalal ak dundam foofa lenn lu koy tere gisuñu ko su fekkee ne eh, réew moom dëkk ñu ñoo xam ne ñoom ñooy tere loola nga xam ne dañ ne la ku xas am surub nationalité bul amati beneen te fekk bëggul a gàddaay am réewam bëgg ko bàyyi ba faw su fekkee ne loolu la moom mën nañoo wax ne bu mu ko jël waaye nag su dut loolu moom lislaam lu muy tere lu nekk ci lu tax muy tere loolu moom nekku li ñu bañ daal mooy nit ki dem ci réew moo xam ne du réewum jullit tax mu seey fa seey fa mooy lan mooy mu fàtte ne moom ab jullit la dem ba yor melokaan woo xam ne jaamootul yàlla bàyyeetul diineem xel lépp lu di ay xeeti njaaxum ak xeeti mooy yàlla mu nuur ca biir ku mel noonu moom waxuma la jël nationalité waaye tukki dem feneen sax waru ko su fekkee ne cim réewam la mën a dundee diineem su boobaa day doon farate ci moom mu toog ci am réewam te mañ a dem ci meneenum réew su fekkee nag mën naa dem ci meneenum réew ba noppi garde diineem garde ngoram jàpp ak njàmburam di liggéey di wàcc su boobaa nekk googee mu fa nekk ak jikko yu rafet yooye muy dunde ak ñeneen ñi loolu mën na leen xëcc sax bañ xem nem lislaam ba dugg ci lislaam kon ku mel noonu génn am mu dem ci meneen réew sax su boobaa lu baax lay doon su àggul ci farata yi dana doon lu feddliku loo xam ne dana tax eh, ñeneen mën a jariñu ci moom bu mën a dugg ci diine ji ku mel noonu su amee nationalité mbir ma day gën a baax rek waaye du doon lor ci boroom xam-xam yi jamono am na ci ñoo xam ne la ñuy ubbee mooy daganul sax faf tukki ci réew mu dul réewum jullit di fa toog ma laal di jël nationalité waaye jàpp naa ne wax jooji wax ju tar la joo xam ne eh, doonut loo xam ne mënees na koo layal ndax saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain su fekkoon ne dañoo toog màddina rek ci gannaaw yonente bi alayhi salaatu wasalaam génnuñu ko ba ñoom ñëpp ñi faatu ba jeex kon na nañoo wax ne lislaam fii mu agsi tey du fi agsi kon képp ku yëg ci sa bopp engagement boo xam ne mën ngaa tasaare lislaam ci kaw suuf fépp foo xam ne may nañ la nga dugg fa sooy dugg fa yóbbaale fa sa jikko yu rafet yóbbaale fa sa diine yóbbaale fa sa lislaam ndax ñi xamul woon lislaam xam ko ñi ko xemmul woon xemmem ko ñi ko bëggul woon bëgg ko su boobaa diine yàlla ji day gën a yaatu te fekk ci sa yoon la jaare te bu boobaa loolu sa tuyaaba day gën a bari te day gën a baax rek naam jazakumullahu xayran cheikhana kii Kell Gueye lay wootee di laaj ci takk téere nee naa def cee dégg ñu ni am na saxaaba yi ñoo xam ne daanan am ñun takkal way demee noonu moo bëgg a laaj ci charia al islamiya takk téere ban gisin la ci am alhamdulilah takk téere dafa am ñaari xaaj am na téere maanaam ay gàllaaj yu ñuy takk yoo xam ne du alquranul karim lu mel ne ay béjjën ak i galen ak ay xaatim yoo xam ne dañ koy bind ba noppi aw ko di ko takk am nag yeneen yoo xam ne ci alquranul karim la moom la ñu bind rek daal di koy ëw daal di koy takk li nga xam ne du alquranul karim moom bind ko takk ko dafa xaraam ci mboolem boroom xam-xam yi li nekk alquranul karim nag am na lenn ci boroomi xam-xam ñu wax ne eh, wàññiwul dara waaye nag ci kaw nag ay chart dañuy wax ne chart yooyee mooy lam bind ba takk ko mu doon ëpp téere te fekk alxuraan kese la ju dara jaxasoogut bu mu tax mu jàpp ne loolu moo koy musal waaye na xam ne borom bi tabaraka wa taala moo koy musal loolu benn charte ñaareel bi mooy loolu yi mu takk te xam ne alquranul karim la bu mu dem ak moom ci xam ne béréb bu sobe la bu sobewu maanaam du dugg moom ci wanag du nekk ak moom ci kaw lalub sëy fépp foo xam ne xeetu sobe mën na faa feeñ rek téere boobee daf koy soreel ak foofa defe naa ne ñaari charte yooyu doy na sëkk ngir ñu xam ne bàyyi ko mooy li gën ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam daana léemoo alquran waaye da ko daan jàng mosu koo takk nag saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain it li wér mooy kenn ku ci mos a takk alquran di ko gàllaajoo loolu moom amut maanaam jël alquran di ko takk ngir ni lii gàllaaj la loolu amut ci saxaaba yi yonente bi saxaaba yi ci boppam defuñu ko waaye nag daanañ ko léemoo daanañ ko mocce ku feebar daanañ ko mocce ku jaan mat bépp lor boo xam ne bu wàcc ci doomu aadama la daanañ jël alxuraan jàng ko ngir loole wér waaye nag jël ko nag takk ko wala nga di ko xooj di ko naan wala yu nuróog yooyu loolu moom saxul jóge ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam saxul itam jóge ci ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain kon li gën a dëgër te wér mooy jullit bi bañ a takk alxuraan ndax doyadal ko daf ci daal di ñëw te itam febu ba doo dugg ak moom ci sobe wala fu am sobe loola lu jafe-jafe la te it takk dara ba noppi wékkoo ca sob xool itam lu jafe la ndax bari na ko takk téere su xëyoon génn rek dem ba ca mbedd ma fàtte ne indaale wu ko rek day jàpp ne bis boobu musiba moo koy dal booba wëtu day daw dellusiwaat ci kër gi ngir jël si ko aju xol boobu nag lañ bëgg mu nekk ci sunu borom tabaraka wa taala mi nga xam foo nekk fu nekk mi ngi lay gis mi ngi lay dégg mi ngi xam say mbir biir ak bitti kooku boo wékkee sab xol ci moom dangay noppalu waaye boo ko wékkee ci loo xam ne ak lu ñu la mën a wax matière la bu ñuy takk ak a tekki su boobaa coono la lay jural moo tax bañ gee takk moo gën kon daal ci gàttal mooy la dul alxuraan moom béjjën yaag xor yaag bant yaag galeen yaag yu nuróog yooya loolu moom boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne loolu moom kenn du ko takk ab jullit du ko takk ndax xeetu xiram la waaye nag bu dee alxuraan karim daal lenn ci borom xam-xam yi nee mën naa nekk ñi ci des ni mënta nekk waaye noonu day leen jàpp mooy bañ gee nekk moo gën loolu nag firiwut ne doo saafarawu ci alxuraan doo ca dimbandiku ndax alxuraan léppam saafara la waaye nag nga defe ko nekk ku baax ka daan defee alayhi salaatu wasalaam mooy di ko jàng foo tollu mu nekk kaaraange sa diggante ak lépp loo xam ne luy lor la ndax borom bi tabaraka wa taala moo ne wa ida qara'ta al qur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladina laa yuminuuna bil axirati xijaban masura su fekkee ne yaa ngi saxoo di jàng alquran day danaa def kaaraange gu dox sa diggante ak lépp loo xam ne luy lore la muy soldaar yi nga xam ne ñooy soldaar yi iblis ak iblis ci boppam loolu nag def naa kaaraange bu nu ko féete kaw kon saxoo jàng alquran moom yi bu feebar amee wala metit walla lor nga jàng alxuraan léemoo ko loolu daal mooy njàngaleem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te fu ñu toll war nañoo bàyyi xel ne xayrul hadi hadiyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mooy njàngale mi ci njàngale yi mooy njàngaleem yonentu yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naam jazakum allahu xayran ya cheikhana kii dafay laaj mu ni imam bi nga xam ni mi ngi jiite di jàng alquran ci kaw ndax dina dagan ci moom euh, ci euh, ràkk bu njëkk bi bu taree faate pare mu tari masalan euh, qul yaa ayyuhal kaafiruun ci ñaaru raaka bi ginnaaw fatiha mu tari sabbih ma nga xam ne sabbih isma moo féete kaw qul yaa na ndax dina dina dagan ci moom mu tàmbalee ci suuf jëm ci kaw wala day tàmbalee ci kaw jëm ci suuf am saar bi mu tari ci ràkk bu njëkk bi ndax dafay nekk rek euh, maam force beneen saar bi muy terewaat ci ñaareelu raaka bi mu gën koo suufe wala dina dagan mu nekk ci kaw alhamdulilah loolu Cheikh Abdallah atte bi moo xam day jàng ca kaw wala day jàng ca suuf waaye benn la moo di li jaadu ci njàngum alquran ci biir julli moo di nii alquran ji toftaloo mu toftalee ko noonu ndax buñ fàtte ne alquran nii mu toftaloo tey ci ay saar ak i laaya mooy ni nga xam ne noonu la toftaloo woon ci gaaral gu mujj gi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa gaaral na ko euh, ci kanam jibril alayhi salaam muy gaaral gu mujj ga maanaam tare bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam mujj mujj tari ci jibril alquran joojee ko jibril déglu ba noppi ca mooy nii alquran tëdd tey ci ay saaram ak ci laayaam kon ki koy tari ci biir julli la jaadu mooy la muy tari bu jógee ca kaw su ko defee day wàcc jëm si ci suuf loolu mooy li jaadu mooy li gën a baax mooy li gën a rafet mooy li gën a dëppoog tëraliinu sunu borom tabaraka wa taala waaye nag loolu taxul ñu ne su fekkoon ne dafa tàmbalee ci suuf jëm kaw kat ñu ne kon julli ga yàqu na wala ñu ne daa def lu xaraam déedéet maanaam loolu yàqul julli ga taxut a tàbbi it ci lu xaraam waaye nag li wér mooy bàyyi na la gën jëm ci li nga xam ne mooy li gën a féete suuf te jullit bi daa iman su fekkee ne day jaamu yàlla wala muy def lu baax lu mu mën a doon la muy gën a jublu mooy la nga xam ne mooy la gën a baax kon daal yow mi bëgg la gën a baax sooy jàng tàmbalee ci kaw jëm suuf waaye bu tàmbalee ci suuf jëm kaw donte sunu borom tabaraka wa taala moo wax ne jàng leen ci alxuraan dépp loo xam ne lu jàppandi la lépp lu jàppandi ci alxuraan jàng leen ko waaye nag yonente bi alayhi salaatu wasalaam li mu jàngale mooy daal kuy tari alxuraan ci biir julli daal tàmbaleel ci kaw jëm suuf Cheikh Abdullah jazakumullahu xayran cheikhana kii dafay laaj ci dem seetaane ay football ak yu demee noonu ndax euh, lu ci sharia wax ak yan teggin la ci teg alhamdulilah lépp loo xam ne jullit bi ma ngay dem di ko seetaan di ca jeexit jeexal waxtoom war naa doon loo xam ne lu ñuy segg lay doon mu door doon lu dagan daa tudd football waaye bu la neexee nga tudd làmb bu la neexee nga tudd yeneen yi nga xam ne yépp ay doomu aadama dañ koy seetaan waaw la wala basket la wala làmb la wala leneen lépp loo xam ne jullit bi da koy seetaan te fekk lu xaraam da koy fekk ca loola na xam ne loola daganut su fekkee nag mën na koo seetaan ba noppi mujj ca lu xaraam loola su boobaa seetaan nga day dagan moo tax kay seetaan loo xam ne dafay gis ay awra maanaam nit ñu summi ko def yarami neen su boobaa kooku sabab la boo xam ne day tax seetaan seetaan loo xam ne day gis nit ñi ci seen jëmmi bopp góor ña ak jigéen ñi ñu jaxasoo bay tampaloo su boobaa loola du dagan seetaan loo xam ne waxtu julli mën naa jot te doo mën a jóg julli ji su boobaa loola day tee dagan kon jëmmi jëf ja ci boppam seetaan lu mën a doon loo xam ne lu daganoon ci cosaan la muy xeetu sport yépp ñoo dagan ci cosaan waaye su fekkee ne lenn tegoon na ca nag loo xam ne mooy tax loola xaram mooy tax chariatul islam ñëw ne la lii kat yow daganut ci yow jullit bi ndax li tax daganut mooy nangam ak nangam ak nangam nangam kon su fekkoon ne jëloon nañu image ne ci ëpp football ngi boo xam ne ña fa nekk dañoo sol ay tenue yoo xam ne dem na ba passé seeni woom jaxasoo góor ak jigéen amu fa te bu waxtu julli jotee dañ koy arrêté dem julli ci ah su boobaa dañuy wax ne loolu moom dagan na su safaan ba amee nag dañuy wax ne loolu daganut loolu bu la neexee wax ko ca làmb ja bu la neexee wax ko ca basket ba bu la neexee wax ko ci mboolem xeeti sport yi nga xam ne doomu aadama yi dañ koy sport la koy xaraamal lu ca jokku si la waaye du mooy jëf ja ci boppam jazakumullahu xayran cheikhana kii dafay wax ma ni li ñu wax ni julli mbooloo moo gën ci julli kenn ñaar fukki ak juróom-ñaar mu ni ndax loolu ca jàkka ja rek lay amee tuyaaba jooju wala jëmmi mbooloo rek ak fum ko mën a defee. alhamdulilah jullik mbooloo moo gën jullik kenn ak fu mën a doon bu dee ci kër gi la bu dee ci jàkka ji fu mu mën a doon gënee na ko tuyaaba yooyu nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ndax bi muy wax ne jullik mbooloo moo gën jullik kenn ci ñaar fukki daraja ak juróom-ñaar wala ñaar fukki daraja ak juróom loola tënku ko ne su fekkee ne ci jàkk ji rek lañ ko jullee wóor na ne julli di daanañ julli ay julli mbooloo yoo xam ne julleewuñ ko ci jàkka ja rawatina suñ mosaa nekk ci tukki waaye nag buñ fàtte mukk ni julli jàkka ja moom dafa am leneen ngëneelul boppam loo xam ne bokkul ak ngëneelul julli mbooloo gi ngëneel loola mooy jéego yi ngay seq di dem ca jàkka ja di ko seq di dellusiwaat ndax soo jëmee ci jàkka ja seq jéego bépp boo seqi borom bi tabaraka wa taala dalay bindal daraja nga seet beneen mu far bàkkaar maanaam dalay bindal tuyaaba nga seq beneen mu far bàkkaar nga seq beneen mu yëkkatil la dara daraja noona la koy defee ba nga dem ba àgg booy del si it noonu lañ la koy defale ba ba ngay del si te loolu ngëneel nekkul ci ngëneelul koo xam ne day jullee ci këram lu dul su fekkee ni julli googu yi mu jullee ci këram ngànt moo ko waral su fekkee ngànt moo ko waral te fekk la mu bëggoon gët mooy jullee ci jàkk su boobaa borom bi tabaraka wa taala dina ko bindal tuyaaba ji nga xam ne mooy tuyaabay ku dem ca jàkka ja wallahu a'lam jazakum allahu xayran cheikhana kii dafay wax ni tabaski bu tombeek bi su tuddam ndax mën naa jël eh, benn xar rek yéene leen ci ñoom ñaar wala il faut bu ci nekk mu wutal ko xaram wala ba bu leen ci yéene ban lay jiital ndax tabaski bi lay jiital dog ci teg ngénte bi wala ngénte bi lay jiital doog ci teg tabaski bi tabaski ak ngénte ñaar yooyu benn bu ci nekk sunna bu dëgër la donte am na lenn ci borom xam-xam yoo xam ne dañu wax ne gën naa dëgër sax sunna waaye dem na ba àgg ci nekk waajib mooy loo xam ne lu war la waaye ñu xam ne e, boroom xam-xam yi juyoo nañ ci masala bi nga xam ne moom moom la laajkat bi di laaj lenn ci boroom xam-xam yi lu mel ne ngirum imam Malik dañuy wax ne yooyu ñaar benn mënu caa wuutu moroom ja maanaam daal am nga ngénte loo xam ne daa daje ak tabaski ñu ne yooyu kon lenn lu ci ne sababu boppam la kii tabaskee ko tax a jóg kii ngéntee ko tax a jóg kon benn mënu cee wutu moroom ja li nga mën daal mooy def lépp maanaam boo reyee sam tabaski ba noppi nga rey sa sam tudd wala boo reyee sam tudd nga rey sam tabaski àgg nañ ci wax ne sax bu reyoon gàtt bi yéene ci ñaar yi faf amu na amu ca benn nag faf boo reyee gàtt bi ne damaa yéene tabaski waaye yéene naa ci ngénte li nee na amoo tabaski amuloo ngénte loolu nag wax la joo xam ne ju diis la téewul am na nag yeneen i boromi xam-xam yoo xam ne ci biir ngir yi ci lañ bokk lu mel ne ngirum Abu Xanifa dañuy wax ne mën nañoo wuutoonte maanaam kii bëgg a ki daal bëgg a ngénte te am mennum xar maanaam benn gàtt bu ko neexee mu rey ko ngir yaar yépp loolu nag ak jiw ci borom xam-xam yoo xam ne kenn ku nekk dafa wut euh, illa ak sabab boo xam ne moo tax mu ne lii moo gën a dëgër euh, liñ jàpp ne ñun mooy li gën a dëgër daal mooy ki nga xam ne man-manam mate na ko ki ko man-manam mate mooy lenn lu ci nekk mu jox ko xàqam donte dañoo daje ci benn bis su reyalee lenn li ba noppi reyal li ci des su ko defee kenn ku nekk jot ab am su fekkee nag dafa néew kàttan maanaam dafa néew doole nga xam ne daal li mën a am ci bis bii mooy mennum xar la ci am maanaam benn gàtt la ci mën a am kon mu yéene ñaar yépp su ko defee suñu borom ko wa la mën na ko defal loolu su fekkee gis na ne mënta yéene ñaar yëpp waaye benn bi la bëgg a def mu bëgg a xam nag ban moo ci gën a dëgër ñu xam ne ngénte li moo gën a dëgër tabaski gi li ko waral ci gis boobu moo di ñaari mbir moo di ne e, tudd gi àqi sunu borom tabaraka wa taala da cee aju ndax moo ko soññee moo ko digle waaye xaqi liir bi itam da cee aju ndax moom lañ koy defal te bu fekkee tabaski jëla nag àqi sunu borom tabaraka wa la waaye amul doomu aadama ji ñuy wax ne àqam da cee aju loolu moo tax su ko kenn defee ci kër gi maanaam borom kër gi su ko defee mën naa yóbbaale ñu ci des ñépp te bu dee ak tudd nag maanaam ngénte mënee su ci yóbbaale keneen ku ci bokkut maanaam su fekkoon ne dafa am ñaari doomam yoo xam ne ñoo daje ci benn bés mu war leen a ngénte it mënuñoo wax ni jenn doom bi day yóbbaale ji ci des ndax kenn ku ci ne dafa am xàqam juñ ko war a defal muy am tuddum boppam loolu moo tax tëb ngénte li moo gën a dëgër tabaski mi su fekkee ne benn gàtt rek la yam te bëggut a yéene ñaar yépp ndax wóorut ndax la ngirum imaam Malik wax muy si yéene ñaar yépp faf amatu ca dara su fekkee loolu lay daw ba ne man benn bi laa fas yéene jël su boobaa nam koy doxale mooy ne jiital ngénte li su ko defee bu noppee nag neenal tabaski mi wala su demee ba amum tabaski ci biir ñetti fan yi mu door a rey am tabaskiyam wallahu taala alam jazakum allahu kii dafay laaj ndax wat sikkim dafa xaraam wala dañ koo sib rek góor guy wat sikkimam alhamdulilah cheikh abdallah borom xam-xam ne usul yi dañuy wax ne loo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digle na ko def ko day doon lu war loo xam ne tere na ko bàyyi ko day doon lu war bu ñu waxee lu war nag mooy obligation boo xam ne sañu ko wuute ak loola yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle na ñu bàyyi sikkim bañ koo wat waffiru liha loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax nee na na ngeen ko bàyyi bañ koo wat moo tax digle googu def gi doon loo xam ne lu war la nekk obligatoire boo xam ne su nit ki juyoo ak ndigal loolee la muy def lu xaraam lay doon ba noppi wëlbati ko tere wat gi mu ne bu leen ko wat su teree it bàyyi la muy tere lool mooy jaadu mooy bàyyi wat ga bañ koo wat su fekkoon ne rek digle na ko kon ñi xam ne lu war la dañ ko ci daal di dégg ca ndigal la waaye bi mu ko teree it ñu xam ne wat ga luñ xaraamal la loolu dañ ko ci daal di war a dégg waaye ñaar yépp nag far bokk daje ca mooy digle na ko tere na safaan ba ba noppi wëlbatiku moom ci boppam def ko maanaam bañ wat sikki moom yonent moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba noppi wëlbatiku saxaaba yi nga xam ne dañoo bàyyi woon seen sikkim bañ koo wat mu bàyyi ca loola itam kon dañuy wax ne mboolem xeet yi nga xam ne ci la diine di saxe yooyu daje ci mooy digle nañ ko wëlbati def ko wëlbatiku saxal ko waaye yemut ca loola mu tere safaan ba maanaam digle nañu lëwal ko maanaam bañ koo wat waaye tere na itam ñu wat ko yooyu yépp nag bu dajee ci menn mbir dañuy xam ne mbir moomee mu war la moo xam ne jooyoo ak ndigal la ñëw foofa lu xaram lay doon moo tax boroom xam-xam yi gën a xóot ci wàllu gëstu ñu ne wat sikkim ba mu set wecc daal kooka moom lu xaraam la xanaa fa jooyoo ga am daal mooy wàññi ga sax na ne lenn ci saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain wàññi nañ dara ci seen sikkim waaye day fekk ñu ngëb ak seen loxo suñ ko ngëbee ba noppi leneen la cay lang ñu ne ah loolu day mënees na ko wàññi ñu daal di koy wàññi loolu sax na kon daal coppati ca kawar ga loola moom borom xam-xam yi juyoo nañ ci dagan gaa ñàkk gaa dagan waaye wat gi ba set moom li wér wér mooy lu xaraam la ak jullit boo xam ne dafay roy yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom warta def loolu wallahu alam jazakumullahu xayran cheikhana kii dafay laaj mu ni ndax dina dagan ci waajur muy rëbb doomam su ko defee loo xam ne lu metti xolom la alhamdulilah euh, rëbb mooy ñaan yàlla euh, ñaan yàlla nit loo xam ne dangay ñaan boroom borom tabaraka wa taala mu sotti lor ca kaw kooka loolu la ñuy tudd rëbb doom li jaadu ci digganteem ak waajuram mooy def lépp loo xam ne dafay tax mu am ngërëmam te fekk merum suma borom tabaraka wa taala nekkul ca loola kon dab ngërëmul waajur ci loo xam ne merum yàlla nekku ci kooku warteef ci doom ji warteef la ci moom it mu wattandiku lépp loo xam ne dafay yëngal xolu waajuram bay àgg ci tax muy àgg ci di ko rëbb maanaam di ko móolu wala mu di ko ñaan yàlla wala sax mu di ko saaga su fekkee kuy saaga la lépp luy sabab yooyu doom ji da ko war a wattandiku ndax kat lu mu ci sabab lu woon loo xam ne day tax baay ba am ca bàkkaar su ca baay ba di am bàkkaar it moom da ciy jël wàllam ndax mooy sabab sa te safaanu loola moo jaadu woon ci moom mooy fexe ba am lépp loo xam ne mooy tax mu gërëm ko da nag waajur wi nga xam ne mi ngi concentré wu ànd ak sagoom jaaduwul muy ñaan yàlla doomam wala mu koy rëbb wala mu koy muulu ndax lor mën na ko caa dale joo xam ne su weesoo moom war naa walbatiku di wéy di ko rëccuwaat ndax kenn ku nekk ak doom jënga jur am na loo ko yéene lu dul alku te loolee nga koy ñaan yàlla su fekkee ne moo tooñ ak kal alkane mën na ko caa fekk kon loolu moo tax loolu di jéem a wattandiku ko gën seet yeneen i bunti yarukaay yoo xam ne dana ca mën a jaare yar ko su fekkee ne da koo bëgg a yar moo gën mu di ko móol naam cheikh abdallah jazakum allahu kii dafay laaj mu ni fukki fan yii nga xam ni ci la bisu arafaat nekk lan lan sant jaam bi nga xam ni ajiwul mu def ko ci bisu arafa ak kañ la bisu arafa ak tamit fan yi ñu nekk tamit lan la ci lislaam santaane nga gën ñu koo fàttali alhamdulilah Cheikh Abdallah bésu moom mooy eh, dibéer jii di ñëw maanaam dimanche ci la xujjaaj yi nga xam ne dañuy aj néegu yàlla bi bis boobu ci la ñuy taxaw arafa kon bis boobu mooy bisu arafa képp kuy woor bisub dimanche boobu yi ngay woor ak foo mën a nekk ah fukki fan yu mujj yi nag maanaam fukki fan yu jëkk yi sax laay wax ndax fukki fan yu jëkk yi ci bisub tabaski eh, mooy bëccëg yi gën ci bëccëg yi comme ni nga xamee ne fukki guddi yi mujj ci weeru koor mooy fukki guddi yi gën ci guddi yi te sësaloo te laylatul xadar nekk ci seen biir kon fukki bëccëg yi nga xam ne ñoo jëkk ci weeru tabaski mooy yi gën ci bëccëg yi ci at mi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na li nga fi mën a def ci aw yiw lam lay jural ci tuyaaba fukki fan yooyu rek moo ko man la nga fay def ci aw yiw ak lu mu tuuti tuuti lam lay jural ci tuyaaba ci fukki fan yooyu rek ci nga ko mën a defee am ca lu toll noonu ba tax na fukki fan la yoo xam ne des ko war a màng def ci lépp loo xam ne lu baax la tàmbalee ko ci woor ko ku koy woor nag da ngay woor juróom-ñeenti fan yi maanaam woor ba woor yow ma arafa yam ci waaye bisu iid ba nag kenn du ko woor te xam nga ne bisu iid ba ci fukki fan yi la bokk joxe ca la nga am muy dimbali ñu ñàkk ñu jàppale leen seen kem kàttan lépp loo xam ne jàpp nga ne lu baax la lu nit ki di def di ko jaamoo yàlla tam doon lu jub loola lu jaadoo def la ci fukki fan yi lu ko tàmbalee ci julli julli yu bari tudd yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jàng alquranul karim joxe sa alal woor yooyu loo ci man ci fukki fan yooyu def ko ndax yaa ngay denc ci sa compte ëllëg ci aw yiw loo xam ne suñ borom tabaraka wa rek moo xam nu mu te jullit bi bul fàtte fii mu nekk ci àdduna ëpp commerçant la boo xam ne la muy jéem mooy comptam bu ci àllaaxira bis bu set mu tàbbal fa loo xam ne daal fas na yéene bu ko fa tàbbalee bis bu dajeeg moom lu koy amal njariñ la te bu ko fa tàbbalee dana góor góorlu ba loola du yàquwaat mu mën koo garde ba wuy ji boromam kon fukki fan yu mujj yi moom mu ngoog lépp loo xam ne jullit mën na ko ci rek na ko ci def jokku bokk ak digal nit ki lu baax ak tere ko lu bon ak lépp loo xam ne yiw la toog di déglu alxuraan sax ci ko ko mënta jàng loola ci boppam ci yiw yi ci la bokk toog di déglu ay waxtaani diine ak programme yi diine yoo xam ne lu mel ne rajo leeral bi daf koy jàllale yooyu yëpp ay yiw la yoo xam ne lépp lu ci waay man daal ci luy jaar ci say nopp say bët ak saw làmmiñ ak sa jëf lépp fexe ba mu doon jaamu yàlla daal doon lu baax loo xam ne ngërëmul sa borom tabaraka wa taala nga cee jële loola moom mooy moom la nit ki war a xantiwoo ci fukki fan yu mujj yi yu jëkk yi ba buy génn fekk def na aw yiw wu bari fukkeelu fan ba nag boroom bi tabaraka wa taala daf ci santaane nag yoo xam ne yu am solo la ci ki nga xam ne nekkul arafa ndax bul fàtte ne mukk ñay aji dafa am yu leen war ci bisu arafa ba am yu leen war ci bisu tabaski ba ñu di ko def ginnaaw nag yow aji woo itam ñu ne yiw wa kat bul jàpp ne ñay aji dañ koo yóbbu ba yow mi su toog sa kër yow perte nga déedéet yow itam am na yuñ la jox yoo xam ne boo ko defee kay aji daanaka rek gañewula su fekkee ne sellal nga bokk na ca woor juróom-ñeenteelu fan boobu soo mënul woon a woor dara ci fan yu jëkk yi waaye bisu arafa bi nga woor ko it kooka moom lu baax a baax a baax la loo xam yonente bi alayhi salatu wasalaam diggée ci ay bakkaar yu far bisu tabaski ba ñëw nga mën a rey nga rey sam xar kooka jaamu yàlla gu rëy la ci bis boobu ba yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na amul genn jaamu yàlla gu rëy gën a rëy ci bis boobu nit te tuur ca deret yi ab gàtt boo xam ne daf koy jaamoo yàlla ci bis boobu nga xam ne mooy bisu tabaski bi su ko defee ndawal gam ciy jële mu jox ci waa këram ñu jariñu ca lekk ca bu baax jox ca itam ay dëkkandoom jox ca itam miskin yi ak fuqaraaw ñu mën cee jariñu loolu doon ak jaamu yàlla bu rëy goo xam ne da koy def ci bis boobu boole kook ñaan gi nga xam ne mooy ñaanu bisu arafa buñ jàpp mukk ne ka nekk arafa rek mooy ñaan waaye ki nga xam ne nekkul arafa itam su wooree ba takkusaan jaadu na mu jël waxtoom la ca des lépp jëmale ko ci ñaan borom bi tabaraka wa taala defal ko tawfiq ñaan lépp loo xam ne lu koy jariñ la di jariñ am réewam di jariñ ay bokkam ay bokki jullitam su ko defee loolu day doon yiw woo xam ne day mel ne ajiwut waaye nag pertul dara loo xam ne ñay aji am nañ ko te fekk moom amu ko su ko defee kooku yiwu kese la woo xam ne jullit bi war koo sàggane jaatu na nag eh, weer wi ginnaaw xas na teru ñu fàttaliwaat ne weer wi su xasee teru kanara tabaski nga xam ne fas na yéene reyum xar duuti jaadu ci moom nag muy dagg benn kawar di ko wat dëganu itam muy leew ay ween waxuñu koy ajde waaye ka toog ci këram te naru tabaski weeru tabaski bi teru na bul leewi say we bul wat itam benn karaw loolu yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo ko jàngale mu doon loo xam ne des ko war a jëfe di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dimbali ñu defal ñu tawfiq ba nu mën a màng eh, fan yi ba mën cee def jaamu yàlla yoo xam ne suñu borom tabaraka wa taala dana ko gërëmloo te su ko gërëmloo nangu ko ful ko te su ko fulee mu doon loo xam ne danañ ko mën a jariñoo ëllëg ba nga xam ne dañuy daje ak sunu borom tabaraka wa taala di dellusiwaat di nuyu di tàggu itam mboole mbokk yi nga xam ne ñoo nuy déglu ci leeral FM moo xam sunu mbokk yi Louga wala mbokk yooyu nga xam ne ñoo doon déglu tey laaj moo xam ñu dëkkee ca Thiel Guèye te sunuy mbokk yu bari nekk fa itam ak ca mbokk yi nekk ci Italie ak feneen ak feneen ci mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ seqaloon jotaay bi ñuy laaj ñuy jéem a tontu kon defe naa ne ñu tàggu foofu Cheikh Abdallah ba àllarba bi ñëw nu waat ci jàmm wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain